sëriñ bi sëriñ Sidi mi ngi lay nuyu. nee na sëñ Sidi mi lay nuyu. nee na mi ngi lay ñaanal. sëriñ Sidi mi lay ñaanal. yàlla guddal saw fan. nee na yàlla guddal saw fan. te wéral say cër. wéral say cër. te bàyyi la fi. te bàyyi la fi. nee na. nee na. neel nee na yow sëñ Basiiru ne maa ngi ci kanam maa ngi ci gannaaw nee na sëñ Basiiru sëñ Siidim sëñ Ablaat nee na mi ngi sa kanam mi ngi sa ginnaaw xam na ni nga def ni mel nee na xam na ni nga mel xam na ni ni nga ko jàppee xam na ni nga ko jàppee xam na fi nga nekk xam na fi nga ne nee na nag bul geesu dara nee na bul geesu dara bul déglu kenn bul déglu kenn sëriñ bi moom nee na sëriñ bi moom mën na lépp mën na lépp te xam na lépp te xam na lépp lim tëjee wax ji daal nee na lim tëjee wax ji mooy nee daal moom xam na ma xam nee na yow xam nga mu xam na nekk ci lim nekk te bañ a geesu nga ne mbacke ta baña a lo dal lama tejele won wax. neena lolou ko tejele wax. su ma ñëwee naa la ko wax. neena bu ñëwee na la ko wax. mo la jox ñaari nak yele mo la jox ñaari nak ye te daru salam la joge te daru salam la joge ca tole ya la ko yewon ca tole ya la ko yewon defe naa ne bis bi rek la ko don xam neena ñu li mo ma sa am sunna am si mo len ci manon fépp bu mas na du mas a jib nangu ab di fa jib nee julit bu ne ci jub sa contrat nga signé won defu mu taxaw fu nek te fu mu taxaw fu ne te fu mu sëñ Basiiru moom la fa taxawal mom sëñ Muntaxa la fa taxawal kon nak noo ngi ñaan ci barkeb sëñ Touba sëñ Modou Mahfous ne ñi ngi ñaan ci barkeb sëñ Touba barkeb Cheikh abdou Khadir mi borom bis bi barkeb sëriñ abdou Khadir mi borom bis bi sëñ Muntaxa sunu borom yagal ko fi lool sëriñ Muntaxa sunu sunu borom yagal ko fi lool may ko wér lool may ko wér lool lépp lu mu yene liggéeyal mamam ja ba lépp lu mu yene liggéeyal mamam ja mu def ko nam ko bëgge mu def ko ni ko bëggee teraanga ji teranga ji bokku yëpp la ko defal bokku yëpp la ko defal yoon yëpp la ko defal yoon wépp la ko defal sëriñ bi ne yàlla na ko sëñ Tuubaa fay ngeen di fay jërëjëf Mbàkke jërëjëf jërëjëf